capitaine Touré jël na dogalub yóbbu ci yoon journaliste bii di Cheikh Yérim sekk moom ancien gendarme bii nekkoon capitaine di seddinaa Omar ture ci page Facebook gëm daal ma ngi cey wax wax yooyu nee na journaliste bii da ku ko waxal ci livre bi nga xam ne génn na ko yees ci wax yoo xam ne jàpp na daal dëgguwut te itam euh, mënu ko bàyyi noonu ci page Facebook am moom capitaine bi mu cee xam la ne mbetteel laa am bi ma gisee li nga xam ne journaliste bii di Cheikh Yérim sekk bind na ko jaare ko teg ko ci man ci euh, livre bu yees bi ci pass 186 téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-benn ak pass téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar mu jàpp na daal la ma ko ca waxal ay tuuma yu doy waar la tuuma yu garaaf la jàpp na déclaration la yoo xam ne yu ëpp la yoo xam ne itam dara amu ci moom daal jàpp na lii moom mënu koo bàyyi noonu ba tax na daal bii yoon moom nee na dana dem euh, si sur ngir daal ñu daal di woo moom mii nga xam ne moo di monsieur sekk mii lii nga xam ne wax na ko teg ko ci kaw daram mu ñëw leeral ko ndax jàpp na ne wax ja dara dara dara amu ca te naa ne itam du ko bàyyi noonu kon daal moom nee na dina yóbbu ci yoon ki nga xam ne moo di Cheikh Yérim Seck ay wax yoo xam ne waxal na ko ci livre bu yes bii ci page 186 ak page 187 Mouhalim Info. capitaine Seydina Omar Touré dafa jël dogalu yóbbu ca yoon journaliste bii di Cheikh Yérim sekk waxuñu leen woon nag lan mooy motifu mu war ko yóbbu ca yoon moom daal li mu wax dafa am ay wax yu mu ko waxal ca biir livre ba yooyu jàpp na ne du dëgg. waral bu ñu sukkandikoo ci lenn ci information yoo xam ne am nañu ko sukkandikoo ko ci kaw say xabaar yi daal mooy ah, Cheikh Yérim Seck ci livre ba def caa bind yu baree bari yoo xam ne wax na ko ci Seydina Oumar Touré waaye bokk na ca lu mu ko waxal ni daal moom bi Adji Sarr porté plainte Ousmane Sonko moom capitaine Omar Touré photo li nga xam ne moo di pelant bi envoyé ko Ousmane Sonko ne daal loolu bokk na ci li nga xam ne bind na ko ci livre bi te Seydina Omar Touré jàpp ne loolu du dëgg. ba tax na daal mu di ko yóbbu ci yoon du loolu dong nag daañu gën a gëstu ba xam exactement lan mooy lépp li waral ki nga xam ne moo di euh, Seydina Omar Touré bëgg yóbbu ci yoon ki nga moo di Cheikh Yérim Seck ak leeral nag ci livre bu Cheikh Yérim Seck boobu ngir ñi nga xam ne xëy na umpale nañ ko ñu xam ne nekkul ni ci affaire Ousmane Sonko dong la wax wala ki nga xam ne moo di ba euh, capitaine Touré waaye daal li mu wax bari na itam euh, Euh, nguurug président Macky Sall di bi wax na ci scandale yu bare bare bare yoo xam wax na ko ba ci Macky itam attaqué na ko bu baax a baax maanaam daal ridur bi moom dafa mel ne moom na ki ñoom daal ba wax sax ay scandale scandale xam ne daal nee na am na ci moo xam muy Covid bii di teer beegi caaj yoo xam daal jàpp na ne yu euh, day waar yoo xam ne moom wax na ko itam itam euh, livre bi ñaari tome la maanaam daal dafa am première ak deuxième léegi nag benn bi moom moo génn gun deuxième bi nag xam naa ci fan yi ñëw dana génn maanaam ngir fàttali askan ne livre bi nekkul ne ci Ousmane Sonko dong la wax ak capitaine Seydina Omar Touré waaye daal wax na ci yu baree baree bari waaye itam ay scandale yu bari yoo xam ne daal révélé na ko ci biir livre bi am na sax ci biir livre boo xam ne Ousmane Sonko ci moom lay wax ay qualité yu yoo xam ne daal xam na ko ci moom ci daal wax yoo xam ne daal nekk na ci Ousmane Sonko ci biir livre bi ci wàllu politique am ak taxawaayam am na ci foofu moom yu rafet yu am solo lay wax ci usman Sonko Mouhalim Info. ba tey ci livre Cheikh Yérim Seck boobu ak li nga xam ne wax na ko ci Ousmane Sonko waaye tam moom Ousmane Sonko ci boom naka la gisee li nga xam ne moom Cheikh Yérim Seck euh, wax na ko di loo xam ne sax man ngeen ko topp euh, intégralité réaction bu Ousmane Sonko mu def ko ci passé du groupe ñu traduire leen ko en wolof mi ngi ci seen Mouhalim TV waaye bokk na ca la mu jàpp mooy Cheikh Yérim Seck wax yi nga xam ne wax na ko ci biir livre bi euh, di mel ne ki wax ci ay qualité gi ci aju daal moom jàpp ne loolu yëpp daal daf koy sëlëme askan yi waaye itam sëlëme ko xel yi bëgg a nax nit ñi waaye daal moom jàpp na ne objectifu Euh, livre bi du dara lu may yàq deru yàq ab dara moom Ousmane Sonko waaye tam yàq deru waa Pastef moom daal jàpp na loolu képp ma waral livre bi daal di génn waaye tam mu jàpp ne itam lu moom euh, xawoon na fi ndax ay jamono élection jib si woon na fi mu daal di jëloon ay wax yu xaw a yu mel nii lu mel nañu waxoon ci tolo ël waxal ko ko mu jàpp na Cheikh Yérim Seck mi loxoom situ ci woon ndax jamono jooju Yérim Post moo génn woon xabaar bi bokk na ci ñi ko génn woon tey ji itam élection dig dëg malaat du ni mu jàpp na daal li muy def nii yëpp day sëlam xel yi nit ñi bokk na ci la mu wax daal mooy euh, lii mu def nii yëpp daf ko bëgg a def ngir sëlëm xel yi moo tax muy ay wax wax yu rafet yoo xam ne jël na ko teg ko ci kawam ci jëmmam waaye itam wax ko ci dal ci kaw régime bi gi waaye daal Ousmane Sonko daal moom nee na li mu jàpp daal mooy euh, objectif pour livre bii nga xam ne Cheikh Yerim Seck bind na ko dara nekku ca objectif lu may yàq ab deram ngir xëy na dëgmal nañu élection te loolu defoon na ko ci bi ñu dëgmal élection deux mille euh, dix-neuf loolu itam bokk na ci li ñu mën a jàpp ci réaction bu Ousmane Sonko intégralité bi nag mën ngeen ko topp ci Mouhalim TV. xabaar ngi ni bu jàmp ñeel mbirum Ousmane Sonko ak Adji Sarr bu nu sukkandikoo ci RFM doyen des six Omar Maham Diallo jël na dogalub yóbbu Ousmane Sonko ca chambre criminelle bu Dakar ngir ñu àtte ko fa bu nu sukkandikoo ci RFM daal nee ñu am na document yoo xam ne wala document boo xam ne envoyé nañ ko mboolem avocat yi nga xam ne ñoo nekk ci dossier boobu mooy ñiy leyal Adji Sarr ak ñi nga xam ne ñooy leyal Ousmane Sonko xamal leen daal ca euh, dossier boobee ne moom inculpé na ki nga xam ne moo di Ousmane Sonko ci na ko ci kawam muy wàllum viol ak menace de mort ba tax daal nee na kon dana yóbbu dossier bi ci chambre criminelle bu Dakar ñu atte ko fa ba tey buñ sukkandikoo ci RFM nag date bi nga xam ne ci la war a li nga xam ne moo di atte bi moom ko waaye daal nee ñu kon lii nga xam ne mooy ci mbiru Adji Sarr Ousmane Sonko jël na dogal bu ni mel xabaar la boo xam itam gis nañ xëytu xabaar gii di 7TV itam ñoom daal di koy jàllale sukkandikoo ko ci waa A7 Afrique A7 Info Boulefat et abonné. Boulefat et abonné. Boulefat et abonné.